waaw élection yi ñu jëm moom euh, dañuy xool rek par exemple lu euh, le plan stratégie euh, nationale ba deux mille cinquante joxe rek ñu commencé waxee noonu la document boobu joxe day wone ay intercommunalité ah day wone ay pôle de développement su nekkee ne ñaari jëmm yooyu rek génnee nga ko ci plan stratégie boobu damay wax directement ne. te am na sañ-sañ wax loolu ne dama bëgg Kaolack jël premier rek eh, Kaolack nekk euh, la première capitale eh, Kaolack nekk euh, la première capitale de la culture eh, la première capitale de la religion la première capitale de la science la première capitale de l'économie la première capitale de l'éducation la première capitale des infrastructures li tax ma waxee noonu mooy Kaolack du tey Kaolack ku dëmb la te dëmb Kaolack neexoon na trop trop trop trop trop trop amul lenn loo xamante ne euh, ñàkk nañ ko ñàkkoon nañ ko dëmb euh, rafle wuñu nag lu bare waaye euh, li nga xamante ne tey moom laa gis tey ak la nga xamante ne moom laa gis ba campagne bi commencé ba léegi ak la nga xamante ne moom laa gis ba projet bi tàmbalee ba léegi vraiment yaakaar amaat na yaakaar amaat na si ñaari wàll benn wàll bi mooy sur le plan politique Kaolack sonnoon na trop soit kenn nit lañ doon yaakaar wala mu am ay tendance yu bari waaye léegi wax dëgg fa yàlla ñu ngi góorgóorlu bay ànd ñëpp ñu ngi mobiliser wu may profiter encore euh, ci occasion bi pour lancer un appel à ñëpp au-delà de la politique ñun Kaolack daa am défi yu ñu am ñun af Kaolack dafa am héritage bu ñu amoon héritage boobu ñu war ko euh, euh, réparer bu pare bu pare prolonger prolonger ko gën ko suuxat laajte na su bës amee rendez-vous am ñu xam ne projet bi rek a fi de nañ góorgóorlu autour du projet ñu mobiliser wu ndaxte wax dëgg fa yàlla nit nag doo gis nguur ki war a réparer defar sa gox ngay dem ànd ak opposition wa ilaa ñu fal président bu pare lu ëpp 54 virgule 5 pour cent dès le premier tour président boobu ne leen man de bëgg naa ngeen dimbali moom pour mu am assemblée nationale pour continuer ngeen ne jug ko jox loolu amul fenn donc ñu ngi profité ci occasion bi daal di lancer un appel à tous les Kaolackois ne leen nag suñu bés ci projet bi rek la ne Euh, li tax ma ne ko ci projet bi la nekk nag mooy ñi ŋànk projet bi yëpp ñu ñàkk ñu ñàkk ki ñaan lañ euh, président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku bëgg Kaolack la 5 heures matin daanaka lañ ko accueillir fii ci élection présidentielle gan gu mag gi nga xamante ne moom la ñuy accueillir tey si guddi ak suba mooy le premier ministre Ousmane Sonko wax dëgg fa yàlla xam nañ xolam fi mu toll ci Kaolack ma jàpp ne ñaari ñooñu développement rek moo leen ñor développement Sénégal rek moo leen ñor et le développement du Sénégal ne se fera sans la ville de Kaolack parce que en réalité et en majorité li Sénégal soxla lépp lépp lépp lépp Kaolack lay jóge ceeb bi fii lay ceeb bi mën na fay jóge lu gaaw a gaaw lu yomb yomb gerte gi mën na fay jógee lu gaaw a gaaw lu yomb yomb maïs bi mën na fay jógee lu gaaw a gaaw lu yomb yomb jën yi mën nañ fay jógee lu gaaw a gaaw lu yomb soo gisee modèle bi ñu jël Ndaxonga te waratoon nekk Ndaxonga Fatick Foundiougne suñ port bi moo ko gënoon yeyoo ndaxte la plaque tournante c'est ici loo tax ma ne on lance un appel au Kaolack waa de tout pour que ñooñu ñu mobiliser wu. donc premier boobu may wax nag dama ko gëm même le tourisme religieux fii la gën a jekk ndaxte liy ko bitim réew di ñëw fii suñu kilifa diine yi liggéey ko dëmb te tey ñëwagul ba nit ñi ñëw tey di daw Kaolack di vraiment il faut ñu mobiliser wu davantage la presse aussi il faut ñu di ngeen dimbali ñu. ndaxte nee nañ sànq ne eh, xalam eh, demoon na booy neex eh, malheureusement buum ba ne kopet waaye man su ma gisee patriote rek damay bëgg a yee suma maam ne ko alhamdulilah gars yi yegg si nañ mbir mi dina safaat de toutes les façons ñun moom duñ ci bañ dara te luñ ci góobee gar ko te duñ ci góobee dara sax ndaxte ñëpp mobilisé wu nañ bëgg nañ daal am fii score quinze pour cent 80 80 pour cent soxna mi mi ñëw na mbir mi day gën a neexaat rek teeru gan yi élection yi su jeexee ñu ñëw nag waxaat encore suñu biir. coow na. coow coow daanaka coow amul sax Kaolack en tout cas man ñu mel ni man. fu ñu yaakaar ne ñoo ñu ñëwul rek dem nañ jëli leen wax dëgg fa yàlla c'est inédit mm-hmm. ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo li fi nekk ñëpp xam nañ ko fii lañ juddoo fii lañ yaroo yaakaar naa Ablaye Diack ba may ba may ba may ba may dem meeting ay 5 laa amoon mm-hmm. te kenn mënumaa teree dem seetaani la fa xew du dëgg kon xam naa l'évolution politique bi fi nekk famille bi ma bokk wàllu jooju ngay xam naa lañ fi liggéey donc man bokk naa si ñuy war a sacrifier wu pour dëkk bi avancer te loolu moo tax ay yëg si appel bi may lancer rek mooy on a des défis la politique passe mais notre région ne passera pas daa am lu ñu soxla te lu néew rek suñ ko organiser woo dina baax te it yaakaar naa mat na ndaxte kàngam yi ñëpp ñu ngi ñëw te ñëpp dinañ ñëw incha allah. lan ngay wax ban message ngay jox jeunes yi nga xam ne ñoo war a waaw jeunes yi aussi ñun porte à porte bi ñu ngi koy def la jeunesse patriotique ñoom maal ñu ngi nii ñoom Diagne ñu ngi nii notre plénipotentiaire mu ngi nii honorable Badara mu ngi nii porte à porte dinañ ko def am na tey si ngoon rek képp koo xamante ne jiitu woon nga ñu si politique dëkk ci gox bi dinañ dem bu si yow ne la jërëjëf waaye yaakaar nañ la ndaxte ñun ñoo aaye te yaakaar naa ñoo dinañu jàppale l'appel qu'on lance mooy daanaka défi politique amul défi Kaolack premier moo am te loolu war na ko mën a jaral ku ne yàlla nag fekk fekk na ñi fi jaaroon yëpp wees nañ léegi patriote ñoo aaye nañu gars yi ñëw ànd ak ñun ñu bokk ndey bokk baay Kaolack mën a nokkiwaat bu baax jërë ngeen jëf